dolli xam-xam bi yal na yàlla barke ay waay jur tamit xëy ak ustaasam kon liñ ciy teg mooy ñu woo Amira Souna Yande moom nga xamante ni moom moo jiite jotaay bi mu ñëw incha allah dalal ñi nga xamante ni ñoom la invité ñu teew ñu doog a dugg ci biir incha allah.
salaamaaleykum wa rahmatulah. auzu billaahi mina sheytaani rajiim. bismillaahi rahmaani rahiim. alhamdulilah. ginnaaw ba ñu sant ñu musoo seytaane. commencé ci turu borom bi subhaanahu wa taala. julli sangu sangu yi sallallahu alayhi wa sallam. di leen nuyoo nuyu la islaam. yal na jàmm yàlla ak xéewal wàcc ci yéen ak jullit yëpp. di am kontaante bu rëy ndax woote ñu wuñ si la rek sant borom bi la ñu ñaan yàlla buur bi nga xam ne moo ñu xéewale li at bu jot borom bi subhanahu wa taala may ñu fekkee ko di ko organiser at bu jot yàlla mayaan ñuy teewe bés bi kon ñoo ci gën a santaat borom bi di ko kañ ñu ñaan yàlla xéewal bi yàlla na yokk fam bee toog ne takk weer di commencé si turu imam bi ñoo koy nuyu moom mu ne na nga ko bàyyi ak CVK waaw ndaw seenee ak waa indi ko fii.
Tàkke bi yëpp kon nag yaa xam sax bàyyi nee na ñu awa góor, ndaw bàyyi ñu hôpital la jigéen.
nekk ci ci hôpital yi gën a mag ci hôpital bi la bokk kontaane bu mag a dañ koy indi ko force ak kontaane boo xam ne am na ku mu fu mu commencé wante amul fu mu yem indi leen ko fi wala ngeen ndax indi ko lii lépp ci sant yàlla la di fi delloowaat ci kilifa ndokkal hôpital bi la bokk hôpital bu mouvement des femmes bonne dafa éducation baax loolu na koy man bu suusoo si ONAS kon yàlla mi na am fay yàlla leen yàlla fay yàlla na yàlla dëgëral lislaam sama kàddu nag du gudd ndax temps bi dafa xat alaykum salaam wa rahmatullah
kon ma bàyyi El Hadj mu continuer programme bi asalaamaaleykum wa rahmatullah
jërëjëf Amira Yande kon bu ko defee ñu ngi dalal mareenu jotaay bi muy Amira Aldima Ndiaye mooy su mooy bismillah Amira aywa toogal na waaw ñu xaar Maa ngi lay ziar ndaw ndaw ndaw ndaw. Maa ngi lay ziar bu baax.
suñu mbokk Michael Grando di xaar aussi monsieur le maire nga xam ni mooy kilifa gox bi moom tamit war a ñëw bokk ci jotaay bi ak yeneen invité yoo xam ne incha allah bu ñu assuré ñu aleykum salaam ñuy dalal aussi suñu imam yi teew xam naa ñun ñëpp nañ ñëw jaar seen tur wante pour bañ a perte temps dañuy dem directement ci liggéey muy conférence bi nga xamante ni moo ñu tax a daje thème bi ñu jàpp ko ci aaxiru zaman suñu oustaz addaai oustaz Seyd bi war ñu ko defal ki koy présider waxtaan bi muy suñu beneen oustaz toogee ci fekk oustaz Seyd bi muy oustaz Ousmane Diallo comme que loolu moom moo tax ñu ñëpp di daje fi loolu la ñuy jiital bu ko defee ñu jox ku présider jotaay bi wala conférence bi mooy Ousmane Diallo moo ubbil oustaz ñu ñaan yàlla yàlla dëgëral làmmiñam yàlla ubbi suñuy dënn suñu xol ak suñuy xel ba lépp lu ci wax ñu taataan ko ngeen wax rek dimbali ñu mën ko jëfe incha allah ba bu ko defee oustaz Ousmane Diallo moom la ñuy jox kàddu gi incha allah daal di commencé waxtaan bi bisimilah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله kon mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla subhanahu wa taala ñu gis ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñaanal saxaaba yi ak nit ñu baax ñu topp seen ginnaaw bi bu sëy di ñaan yàlla jataay bi yàlla na nekk ci jataay yi nga xam ne dañuy bokk ci jataay yi bokk aljanna amiin yaa rabbal alamin
kenn bi nga xam ne moom lañu tànn tey oustaz al imam Saïd Ly war ñu koo defal ci aaxiru zaman damay wax ne thème bi dafa ñëw ci jamono ndax màndarga yi yonent bi daan wax yépp ci aaxiru zaman ñu ngi ci teg suñuy bët benn par benn kon damay ñaan assistance ñu déglu ko bu baax a baax a baax ba ñu mën a xam ne aaxiru zaman ci boppam nu mu war a mel waaye xam ko rek du doy waaye naka la ñu fexe ba mucc ci loolu loolu moo ci ëpp importance mooy ci waxu benn saxaaba bu tudd Xusayf dafa waxoon man suma toogee ci jataay yonent nit ñi dañuy laaj lan mooy lu baax man su ma ñëwee ma laaj yonent bi lan mooy lu bon ndax lu tax ma koy laaj lan mooy lu bon mooy damay bëgg su ma lu bon dabee ma mën koo xàmmee pour mën koo moytu kon ñu nit laaj nañu mën a xàmmee aaxiru zaman ak ay màndargaam waaye laaj na it ñu xam naka lañ ci muccee yàlla ñu ko yàlla defal kon ma bañ a guddal ma jox ustaz kàddu bi bismillah tafadal
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة وما هو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ginnaaw loolu mbokk jullit yi ñu leen di ziyaara yéen ñëpp di leen baalu àq di ñaan sunu jotaay bi yal na ko yàlla boole ci jotaay yi mu nangu di am mbégte sunu imaam yi nga xam ne ñoo jóge roi Baudouin maa ngi seen ñaari imaam ci baas bi bu ñu leen mënee indi ci kilifa yi ak soxna Awa moom tamit Baudouin la jóge imaam Hadi Dieye mu ngi ne la ci baas bi di ginnaaw ginnaawlu bu leen ko fa bàyyi ak jàllo mbokk yi ginnaaw loolu Cheikh Ousmane comme ni ko mbokk yi waxe woon préparé pour ñu daje tey waxtaane thème bi nga wax muy aaxiru zaman li mu wax mooy dëgg mooy ku xam bi ma préparé thème bi ba pare soxna Hafsa daf ma laaj ne ma ndax pare nga thème bi ma ne ko waaw xoolal ma gis ko mu liir ba ci àgg ma gis ko mu yëngal bopp ma ne ko lan la mu ne ma yowmal xiyaam moo jege si ma ne ko kon xanaa li ngay liir da nga ci tëg bët mu ne ma bépp tomb bu ma liir rek gis naa ko waaw kon loolu la quoi yowmal xiyaam moo jege si lu tax yowmal xiyaam moo jege si mooy yonent bi yàlla yónni woon moo ne buistu ana wasaa kahatayni yonent bi nee na sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne bi ma yàlla di yónni ak yowmal xiyaam fi muy jotee mu ne mu ngi mel ne ñaari baaraam yi mu def nii mbokk yi ndax ñaari baaraam yi li ñu sutantee bëri na kon ci jamono bi lañ nekk moo tax yonent alayhi salaatu wasalaam waxtaane na ay hadis yu baree bari yuy wane axiru zaman mu nekk ay ngëneel pour way gëm yàlla yi yonent seen yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam di waxtaane ay mbir yoo xam ne ñoom la ko jagleel ñoom jullit yi pour lan pour ñu bàyyi xel seen bopp bañ a tëdd di nelaw bañ leen ne suba la yowmal qiyaam ñu kër kër yi moo tax yonent teel na wax ak ñun teel nañoo leeral ci ay hadis yu bëree bari wan ñu melokaanu axiru zaman pour ñu bàyyi ko xel sooy tukki nga jëm benn dëkk boo xamul léeg-léeg dañ lay defal ay panneau sooy ngay dem ñu ne la boo demee ba dëkku sàngam dëkku sàngam nga ciy teg dëkku sàngam nga ciy teg dëkku sàngam nga ciy teg soo duggee zone boobu rek da ngay commencé gis tableau yi maanaam loolu lu muy lu muy tekki ci yow mooy léegi ma yegg benn waay dañ ko fekk ci hôpital mu ngi tëdd tànk baa ngi damm waa këram yëpp a ngi ko wër mais ñi ngi reetaan benn docteur nekk ci biti dégg saal bi ñuy xàqataay mu daal di dugg ne ko waaw yéen ngeen nekk ci hôpital di reetaan reetaan yu toll nii est-ce que yéen wér ngeen waa ji ne ko ñun de li ñuy ree buñ la ko waxoon sax nga taxaw ree mu ne lan la ñu ne ko xaar ñu bàyyi la malade bi mu nettali la li ko dal ba mu damm nii mu ne malade bi yow lu la dal malade bi ne ko dama gént yowmal xiyaam mu ne ko après mu ne ko am oto yu taxaw di yàpp nit ñi ñuy dem aljanna coxeur yaa ngi woote naan aljanna aljanna gaa yi di yéeg mu ne ba oto yi fees benn ñëw gaare ma yéeg mu ne bi ma yéegee ci oto bi oto bi daw mu ne oto bi di daw di daw ba ci yàgg ma ne waa chauffeur bi xanaa yow doo yegg àjjana moom sori na de ne na kenn tontu wu ma mu ne li ñu ma jaaxal nag mooy oto bi man kenn maa ci nekk nag maa chauffeur bi te maa ngi wax ak moom tontu wu ma nee na oto bi dawaat ba ci yàgg ma ne eh yow chauffeur foo jëm mu gestu ma rek ndeke seytaane la iblis mu ne ma toogal rek yow xamoo fu ma la jëmee mu ne ma gestu gis ñu bind jahim ci benn panneau ma gis ñu bind sair ma gis ñu bind jahannama rek mu ne ma daw daa di tëb ndeke waa ji loolu mu gént noonu bi mu géntee gis jahannama rek mu daw tëb ndeke seen étage immeuble bi la yeewu ci kaw lalam daw tëb immeuble bi daanuñ ci suuf damm hôpital la ximmilikoo mu ximmiliku gis boppam hôpital tànk baa ngi damm ñu ne ko lan la mu ne alhamdulillah yowmal xiyaam jotul gars yi ne ko déedéet mu ne jahannama laa doon daw ma dam ma damm gis ngeen kon li ñu bëgg a wax foofu mooy yonent dafa joxe ay melokaan ay mbir pour ñu bàyyi xel suñu bopp doomu ndey yi maanaa duñ ñëw rek ne axiru zaman la ñuy waxtaanee ñu daal di koy waxtaan ñu ne yàqute jamono la après ñu daal dem tëdd déedéet maanaam dañ ciy duut baaraam xam ne yonant yàlla day wane ne kii yonant la yàllaa ko yónni looloo tax mu jox ñu melokaan yii ñu xam ne du da doon waxantu dafa bëgg buñ ko gisee ñu bàyyi xel sunu bopp ñu bañ a bokk ci caaxaan yooyu ñun ñu fexe ba rëcc ci caaxaan yooyu mu bañ ñu dal moo tax yonent wax ci hadis yu bari yoo xam ne wax ko ci jotaay bi du xej waaye dinañ ci indi yenn hadis yoo xam ne tu'ti tasawuran sahihan lil muslim lima sa yaxsul fi lmustaqbal min xilaali nusuus alsharciya ay textes yoo xam ne dafay indil jullit mu imaginer muy am ay gendeeku gendeeku yu wér yoo xam ne daf koy gis su gisee lii rek mu xam ne ah yonent bi wax na dëgg xaaral ma waaj yonent bi wax na dëgg xaaral ma waaj ba keroog bu muy xëy yowmal xiyaam di jot ixwaani wal maqsuud bi axiri zaman huwa axiru zamani dunya alladi yakunu bayna yaday saa wa laalla awalu awaluhu bi'satu rasul sallallahu alayhi wa sallam kama sabata fi sahih al-bukhari min hadisi abi hurayra radiyallahu anhu wa ardaa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bu'istu ana wa saa ka haatayni mbokk yi mu ne lan la ñu jublu ci axiru zaman mu ne liñ ci jublu mooy fan yu mujj bis yu mujj ci bisi àdduna nga xam ne bis yooyu bu paasee rek yowmal xiyaam day jot yeneen yi joxe ci ay mandarga ñaari mandarga yu ndaw ak yu mag daanaka yu ndaw yi moom jeex na mandarga axir zaman yu ndaw jeex na takk desatul yu mag yi kay léegi ñoo des loolu nag day wane ne hadisu Abu Hurayra bi yonent ne bokk na ci mandarga yi man yonent yónni gi ma yàlla yónni ndax man maay ki mu jëwoon 124 000 yonent lañ woon yonent yàlla Muhammad moo ci mujjoon Muhammad ñëw na kon léegi lu ci des jeex na kon keneen dootul ñëw kon loolu day wane ne yonent yàlla subhaanahu wa taala bi mu yónnee yonent yàlla Muhammad day wane ne beneen yonent dootul ñëw kon mission bi jeex na ayyuhal muslimun سيظهر في آخر الزمان مساواة suñ demee ba àddina di waaj a jeex ay njombe rek mooy am ay njombe nit ñi dañuy rus def lu baax maanaam ku def lu baax sax yow da ngay nëbbatu yow yaay yow yaay con bi yow yaay dof bi yow yaay ki bokkul nit ñëpp lan mooy nekk seen philosophie mooy def lu bon concours def lu bon nee na ñaaw teef rek la nit ñi di bëgg nee na ñaaw teef yooyu nag yëpp yonent alayhi salaatu wasalaam wax na ko mu xasiran ummatahu ngir lan ngir mooy tundikuloo xeet wi mooy tundiku leen ndeke mandarga yu yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon joxe joxewu ko rek ngir nangam waaye daf ko joxe ngir mooy tundikuloo xeet wi ñoom ñu bañ a dugg ci loolu mu ne nasullah nasalullah taala an yaasimana min alfitan ma zahara minha wa ma batan mu ne ñoo ngi ñaan yàlla tabaraka wa taala njombe yooyu yonent bi doon wax ak musiba yooyu nun jullit yi yàlla aar nu ci fitna yooyu yi ci feeñ ak yi ci nëbb mbokk yi abu musa al asari xadisam la ñuy njëkk a jël ci mandarga axiru zaman abu musa nee na ak abdullahi ibnu mas'ud radiyallahu anhuma qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna bayna yaday saa'a ayaaman yanzilu fiha aljahl wa yurfau fiha al ilm wa yakthuru fiha al haraj rawahu al buxaariyu mbokk yi hadisu abdullah ibnu masud ak hadisu abu moussa nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na bu ñu demee ba yowmal xiyaam di waaj a jot ñu nekk ci aaxiru zaman ci fan yu mujj nee na li ñuy njëkk a xool mooy réer mooy bëri an yanzila fiha al jahl réer kenn dootul jàng xam diine loolu leer na tey li tax islam mënta taxaw place am mooy jullit ñi dañoo réer xamuñu diine benn waaye dafa bindu benn téere tudde ko benn benn wax ci benn journal mu daan ne al islam bayna naarayni quwwatu aadaihi wa jahlu abnaihi nee na islam ci ñaari safara la nekk safara bi nekk ndeyjoor safara bi nekk càmmoñ nee na safara bi nekk ndeyjoor mooy noon yi nooni lislaam yi doore bi ñu bari mu ne safara bi nekk càmmoñam mooy réer bi jullit ñi réere lislaam da ngay gis jullit bu am fanweeri at mënta liqaam xamul dara ci islaam dara démb dañ maa laaj benn laaj dafa am ku dee ñu koy sang xam naa dafa yàgg xam naa ni mu faatoo peut-être dafa fanaan moom kenn mu faatu ni mu tàllale woon loxo yi comme faatu na ci guddi gi loxo bi léegi pour mu delluwaat day métti gars yi woo ma téléphone ne ma oustaz xanaa dañuy damm loxo bi kon pour loxo bi mën a banku xanaa dañ koy damm dem nañ Casamance ñu fekk fa jigéen bu ëmb bu bu bu ëmb daal di faatu gars yi ne dañuy sang ñoom ñaar ñëpp nan lañ koy sangee dañuy sang ndaw si xotti biir bi génne liir bi sang ko loolu mooy jullit yi dañoo réer xamuñu diine maanaam bokk na ci musiba bi gën a rëy bi yonent bi wax ci hadisu abi Moussa bi mu ne réer mooy bari allahu akbar da ngay gis jullit boo xam ne xamul ci islam dara lu dul tur bi man jullit laa islam xamu ci dara lu dul rek julli suba ñaari rakka la tisbaar ñeent yooyu rek la xam munu laa waxal ci diine dara loolu mooy li nu dal nanguwunu jàng diine bi bëgg a nekk ay jullit loola tax gis nga ku woote rek am taalibe li waa ji mbokk bi doon wax léegi li ñu doon waxtaan ci biir saal bi suñ demee ba nit di gëm am na beneen yonent bu bees mën naa koo gëm mooy ñàkk a jàng diine waaye xam ngeen ne ku jàng diine ku jàng alquran caaxaan yooyu doo ci dugg ndax diine bi day leer ci yow kon bokk na ci màndarga axiri zaman bi ci njëkk mooy réer gu jullit ñi di réer dem ba jullit ñi dootuñu jàngati te jullit ñi waruñu réer ndax lan seen téere bi aaya bi ci njëkk a wàcc lan la wax damay laajte dégguma ko de ba léegi dégguma ko xaaral ma laaj jigéen ñi comme góor ñi dañoo xiif jigéen ñi ba aaya bi lan la ah iqra lu muy tekki jàngal kan lañ ko wax yonent bi bi ma amee ñeent fukki at yàlla ne ko jàngal ñun duñ jàng loolu tax ku jóg rek daan ñuy xëcc ñu wuyu wuyu ko ku ñu woo rek ñu wuyu c'est parce que jànguñu amuñu ay argument yu ñu mën a leerale sunu diine moo tax diine ji lu nekk nga gis ci pëccaxoo li may wax gaa yi tafsir diine ji sabar bu tas la léegi sabar bu tas ku nekk la neex wax la neex def an yanzila fiha al jahl mu ne wa yurfau fiha al ilm su réer amee lan moo fiy jóge mooy xam-xam léegi lan moo am xam-xam xam-xam amatul xam-xam moo am waaw lan mooy may nit ñi xam-xam mooy jàng lan moo fiy jële xam-xam mooy ñàkk a jàng kon bu ñu bëggee dund diine mu leer foog ñu jàng yonent yàlla daf koo jàngloo bi ma amee ñeent fukki at nga xam ne dafa waroon wax ne man dépasse sama war damaa war a dem doxi dundal sama kër yàlla ne ko jàngal te sax ndeysaan boor boobu wàll woowu jigéen ñi sax ñoo fa tane góor ñi ñun de dañuy organiser ay cours du soir di jàngale waaye jigéen ñi rek ay jàng doo gis góor ñi moo tax bëri na paa boo fi gis ci jàkka ji boo ko nekk ci dama ci kanam mu ne la si dama ci da ngay gis paa yi fekkee ñuy wàcce kaamil de wàcce kaamil koo wax nii benn jukki mu ne la maa ngi ci kurus gi ku mënul jàng alxuraan mënoo zikr ku war ku jàngul alxuraan waroo yore kurus lan moo nekk ci alxuraan istaghfiru baatu astaghfirullah moo fa nekk baatu subhanallah moo fa nekk baatu laa ilaha illallah moo fa nekk loolu su fekkee mënoo jàng alxuraan mënoo koo wax moo tax da ngay war a wax astaghfirullah nga nekk fa naan saafurulaay saafurulaay saafurulaay luy saafurulaay soo baree wax soo baree wax subhanallah nga ne subhanalaay subhanalaay da ngeen koy dégg sax ci jàngi subhanalaay alhamdulilaay laa ilaha illallah benn du ci noonu dara baaxu ci léegi nag yow boo yoree kurus toog fanweeri at ñeent fukki at amoo looy wax rek lul subhanalaay alhamdulilah laay laay la laa xam ngeen ne laay laay la laa du arab ba pare ñu ne dañuy dund diine loolu mooy nax suñu bopp looloo tax su réer amee xam-xam day dem léegi lan mooy remplacer mooy wa yuksaru fii al xaraj rayante daa di bari nag musiba daa di bari deret daa di tuuru tey kan ci yéen mooy xëy te déggul jullit yi ñu rey waxuma sax ci étranger de mais fii ci biir réew mi ñaata yoon ngeen di xëy dégg ñu ñu rey ñaata loolu mooy premier hadis ci mandarga axiru zaman bokkaat na ci mu ne inna min asrati saa an yurfa al ilm wa yazharu al jahl wa yafsu zina wa yusrabu al xamr wa yazhabu al rajul wa yazhabu al rijal wa tabqa al nisa hatta hatta yakunu li xamsina imraa qiimatu rajulin wahid rawahu muslim yent yàlla muhammad nee na bokk na ci mandarga axiri zaman su fi xam-xam jógee réer daa di tasaaroo mu ne njaaloo daa di bari njaaloo tey ñun ñëpp nangu nañ Sénégal li xale yi jigéen yi doon wax naan njaaloo daa bari ba mel ne sërub Lagos wëlis boo ubbi fekk ko ci loolu mooy kër goo dugg rek am na doomu njaaloo ndeysaan léegi nekkatul gàcce yonent bi nee na du ñu denc loolu ba góor jàpp jigéen ba ca tëral ko ci mbedd mu ne wa yaqulu xiyaaruhum la waaraynaahuma waraa haza alxaait nee na ñu baax ñi ñooy ñëw ne waaw jàpp leen tànk yi fee ñu jàpp jàpp leen loxo yi ñu jàpp ñu daal leen di jël ñoom ñaar daal leen di sàng ci ginnaaw miir bi ne konti leen foofu jóg leen ci mbedd mi wala mooy njaaloo bu tasaaroo tey dañ ko utal ay kër kër yoo xam ne fa la ñuy njaaloowe utal ko ay barab or ne ko capp cappal ko ba nekkatul gàcce nekkatul gàcce moom njaaloo ndeysaan yal na yàlla yërëm hind boobu nekkagul jullit dafa jékki-jékki tekki alxuraan naan yow yonent bi jigéen ñi gëm yàlla bu ñu ñëwee ci yow di jaayanteeg yow isa jaaka al muminat yubaayinaka jigéen ñi bu ñu ñëwatee di jaayeeg yow na nga waxtaan ak ñoom bu ñu nangoo ne du ñu njaaloo rek nga jël leen hindi bi mu déggee loolu mu ne wa man damaa dégg yàllaay muhammad di tere jigéen ñi jullit ñi njaaloo ñu ne waaw mu ne ndax gor dina njaaloo gor mu ne ataznil xur ndax gor dina njaaloo mbokk yi hind bu ñëwoon tey Sénégal lu muy fekk moom da doon laaj waxul jullit de da doon wax gor ndax gor day njaaloo loola doon laaj ñun tey ñu ne léegi suñu biir kër yi ay doomu njaaloo di fa doxantoo yoo xam ne mënuñ ci dërëm ndeysaan mbedd mi fees dell ak njaaloo njaaloo mi ne xasar ci biir dëkk bi ba dem nañ sax léegi ngénte njaaloo yi ñoo gën a xumb ngénte yi ñuy takk da ngay gis maire bi ne damay teggi sama natt teral ko waaw waaw dama koy teral ba mu tedd kawe ba mu étage dama koy étaasal damay defar ba mu baax loolu kay mënoo ko defar ba mu baax loolu kay kenn mënu ko defar ndax damay bañ mu am gàcce benn policier bu topp ci benn xale bu jigéen rek di ko ëmbal te du takk mukk ñu woo ko réunion ne ko yow lu tax yow doo takk xale bi papaam ne maay tontu papaay policier bi ne maay tontu lu tax du takk ma ne ko bismillah mu ne parce que loi bi def ko tere mu takk ñaari jabar ma ne ko ban loi mu ne loi armée ma ne ko ah yéen da ngeen a bëgg seen loi ngeen di violer loi yàlla yow yaak sa doom ji loi armée ngeen respecté ngeen di xëtt loi yàlla loi yàlla lan la wax ci li muy def mu ne boobu nag xaw eggaguma foofu quoi man ko kon ñun ñi fa yegg ñu wax la ko yëgal ne yaak sa doom ji ay njaalookat ngeen ndax day njaaloo te yaa ko ci bàyyi mu ne bu ma wax loolu sëñ bi lu tax mu ne du takk xale bu jigéen bi mënu ko bàyyi lu tax parce que nee na loi bi def ko tere mu takk ñaari jabar te mënta yem bu doon lislaam la ñuy àtte lu ñu koy def ku am jabar ba pare di njaaloo du koy rey comme lislaam nag dafa tumaranke mu bugg fee nekk rek topp xale bi kon loolu mooy njaaloo bu tasaaroo nga xam ne dëkk bi gàcce amatu fi ku nekk lu la neex nga def loolu ci màndarga aaxari zaman la bokk te li may wax ni ku nekk mën na cee tëg bët ci mbedd mi télé yi sax dañuy njaaloo théâtre da ngay gis léegi ñu teg théâtre nit ñi di seetaan njaaloo wala amul théâtre yi ngeen di seetaan genn wàll gépp théâtre yi njaaloo la film yi da ngay seetaan film boo xam ne njaaloo la nga toog di seetaan yàgg sa waa kër léegi kenn dootul wax sax déedéet amatul sax kuy fiir loolu ci mandarga aaxiri zaman la bokk ndeysaan njaaloo bu tasaaroo foo tourné zina la bañ nañ ko sax ba ay seen théâtre kat yi dañ koy saboté voilà waa ji sax du wax laa danaan taqarabo yàlla dana woon wala taqarabo moom ne taqarabo mooy jege leen mooy ku nekk lu neex def mbokk yi ndekk mbir yi du lu ñuy wax nii rek nit ñi di yéemu déedéet dañu bëgg julli ñi delloo ci seen xel dañ leen bëgg a nax moo tax ñu jaaral leen ci yoon yi yombal ko bépp soirée bu ñuy organiser wala football yi ñuy def da ngay gis oto bi tasaare capote ñëw waaw oto bi tasaare capote day ñëw soo feebaree boo demee hôpital paracetamol moo gën a ndaw da ngay jënd wala musiba yooyu bu ñu koy tasaare kenn du jënd dañ ñëw di ko maye gratuitement dem ci école yi di ko maye dem ci place yi dem ci jardin public yi di ko maye pour njaaloo bi tas te réew mi bu ñu njaaloowee ñan ñoo njaaloo mooy jullit yi kon jullit yi lañ bëgg a yàq parce que xam nañ ne njaaloo day wàññi day fay leer seen digganteeg seen borom jàng ngeen histoire Abdallah ibnu Xuzaafa njaaloo la ko buur bi bëggoon def loo pour martabaamu deñ premier jour bi daf ko dig àdduna ak lu nekk ci biiram ne ko boo ko bàyyi boo bàyyee islaam ma may la sama doom bu jigéen bi nga takk ko après ma dagg dëkk bi ci digg bi nga jiite benn parti bi ma jiite benn parti waa ji ne ko mënumaa bàyyi lislaam mënumaa bàyyi muhammad mu ne kon gars yi xam ngeen lu ngeen def da ngeen koy ëffal ak xale bu jigéen su njaaloowee rek day bàyyi yonent bi ñu dem tànn xale bu jigéen bi gën a rafet ci at ci seen dëkk jamono yooyu ñu daal di koy dugal ci waa ji simmi ko ba mu set nag waa ji nee na bi ma ko gisee muy ñëw dama concentré wu ci asma illahil husna waa ndaw si bi mu ñëwee gësëm ma gësëm ba sonn laal fu nekk mënumaa yëngu ndaw si daal di yuux ne kaay leen ngeen génne ma ci ëkk ngeen ma dugal xam ngeen ëkk xam ngeen ëkk est-ce que ëkk mooy garab gu dee mu ne génne leen ma ki ngeen ma dugal du nit ndeysaan troisième bi nag léegi mooy comme def ngeen ko àdduna bañ na njaaloo leen ko bañ na rey leen ko daal di baxal ñaari cin ñaari cin lañ baxal cin yu rëy yu ëpp sunu cinu ngénte yii ba mu bax ñu daal di jël benn jullit bi rek dugal ko ci biir benn cin bi yàpp yi daal di jëm kaw di rëb bi daal di fulleeku ndax cin bi ni mu baxee ndox mi ñu ne Abdallah yow la ñuy dugal ci ñaareelu cin bi de rek mu daal di jooy buur bi ne ko voilà yaa ngi nii léegi tappet nga ba pare ngay jooy looy jooy ñu ne dañ lay rey rek ngay jooy mu ne jooy ma lool de mu ne looy jooy mu ne kii def maa jiitu aljanna kan mu ne ki ngeen njëkk a rey daf maa jiitu aljanna loolu lay jooy ñu ne lu tax mu jiitu la mu ne gis nga bi ngeen ñu tëjee ci kaso bi su ma naafila ñaari rakk mu naafila ñeent su ma wooree benn fan mu woor ñeenti fan xamoon naa nim ma jiitoo ci jaamu yàlla noonu la may jiitoo aljanna moo tax raw na ma niñ bëggoon wane ci xissa bi rek mooy niñ ko bëggoon nax boole kook jigéen mu njaaloo imaanam daal di rës ndax yeneen bi nee na laa yazni azzaani hiina yazni wa huwa mu'min mbokk yi ñëw na beneen màndarga ci màndarga yi gën a doy waar mooy mawtul ulama deewu borom xam-xam yi waaw yeneen bi alayhi salaatu wasalaam wax na ci hadis bu Buxaari moo ko solo mu ne yazhabu saalihun borom xam-xam yi nit ñu baax ñi dañuy dem dootuñu fi des mu ne lan moo fi des mu ne xafaala ka xafaalati sair awi tamr mu ne su boobaa nag laa yubaalihum llahu baalan mu ne ñu baax ñeeg borom xam-xam yi dañuy dem lan moo fi des ay simbkat lu fiy des ay mbëri làmb lu fiy des ay rappeur lu fiy des ay kiris karas lu fiy des mooy yolomal caaya lu fiy des mooy ay jigéen yu dul sol se lu dul sol yu dul solu foo tourné gis awra yi di lambar lambari ci biti am na wala amul jeex na ay nit ñoo xam ne amatuñu valeur ay xottu gerte lañ xott comme xott xam ngeen xottu gerte xottu orange noonu la yonent bi waxee xadis bi xafaala ka xafaalati sair awi tamr comme ay xooxi tàndarma ay der yonent bi nee na nit ñu mel noonu te loolu am na xam ngeen ne nit ñi léegi amatuñ benn valeur waaw da ngay gis kilifa gu ndaw dugg ci yoo xam ne laa ilaha illallah sa yaram day daw wala même wax sax suy wax nga xam ne kii normalul parce que nit ñi ñoo amatul valeur parce que yonent bi loolu la wax bokk na ci mandarga axiri zaman nit ñi dootuñu am njëriñ dootuñu am personnalité dootuñu am qualité xoolal tey jigéen ñaa ngi nii genn wàll gi yëpp conférence bee tax ñu teg kol mun demee ne yàlla conférence bi jeex na de ba année ba année bii di ñëwaat au revoir mon Dieu waaw lan moo leen di booleeg muur awra mooy julli léegi sax julli yi jigéen ñi moom moomatuñ seen awra yi muuratuñ ko ci julli da ngay gis kuy julli ween yaa ngi génn loxo yi mbagg yi soo ko nee lii nag mu ne nii laa ko mëne kon mooy yàlla boo bëggee jëlal boo bëggul yaa xam ne nii laa ko mëne loolu musiba la almaratu kulluha awra téere bi gën a tuuti ci laxdar yi moom lañ jàng soo waxee ñu ne aadaay naar la wala islam bu ñu xaw ma importé du lañ leen gëmloo ne muuraay bokkul Sénégal islam bu ñu importé la loolu lañ leen gëmloo fi mu nekk dëkk bi yëpp loolu la ñuy wax kenn bu fi kenn muuru bu kenn sol lii nangal nangal waa léegi dangal moom fu mu bokk importé la wala du importé dama bëgg ngeen tontu de dangal importé la wala importé wuñ ko paccal nag voilà importé la wala du importé wala fii fii la dëkk ah waaw kon kay jeex na kon ñoom dañoo indi seeni mbir ñu ne bu keneen indi te nag lépp lu ngeen la fi gis importé la tarixa yi sax dañ ko importé Tijaniya dëkku Sénégal ah ah Xaadiriya fu mu dëkk yëpp dañ ko jëli indi ko kon kay jeex na waaye nag li garaaw mooy yonent yàlla Muhammad moom li mu fi indi kenn war koo remplacer ndax mooy dëgg te moo fi war a nekk lépp ci loolu la war a tegu lu mu mën a doon ci kaw sharia la war a tegu su fekkee teguwu ci rek du dem inna safinata la tajri alal yabas gaal du daw ci ci suuf su waw mukk waaw sëriñ bi nee na na ngeen di natt xaqiqa ci kaw sharia su ngeen jëlee xaqiqa natt ko ci sharia mu dem rek baax na su ngeen ko ci nattee demul sànni leen xaqiqa ba ci àllaaxira baaxul te loolu ki ko wax ci réew mi la dëkk waaye maa asaf nit ñi li ma doon wax léegi léegi ci réer ni ñu réeree tarixa yi noonu la ñu réeree l'islam loolu moo tax tarixa yi ci boppam sax baaxatut waxuma la ak sharia bi nag ndax léegi tarixa bi lan la ay sabar la fecc ak way léegi Sénégal seen diine yëpp du lenn lu dul sabar fecc jeex na su si su timisee ñu bala mbedd mi taal lamp yi ñuy fecc ba 4 heures du matin wala boo ñu ne de démb dañoo mbalax mbalax yoo xam ne loolu mooy islam fan la yàlla wax loolu ci ci islam kon mbokk jullit yi nanu xam ne diine yàlla ji amul changement ba yonent yàlla Muhammad indi woon ba fii nu toog moom mooy diine yal na yàlla yaram imaam Malik nee na lu nekkul woon diine démb mënut a nekk diine tey lépp lu fi yonent bi bàyyiwul woon mu nekk diine mu nekk diine tey beneen bi ci mandarga yi alxarbu diddu taalimu diin xam ngeen li xew léegi ci àdduna bi mooy xeex jàng diine ci islam jàng diine l'islam ci àdduna bi mooy diine l'islam bu ko kenn jàng su ngeen demee tey am na ci yenn dëkk ci àdduna bi changé nañ système mu njàng ma loolu moo xew léegi ba ci Sénégal gis nga daara daara wala daara yi nuñ koy xeexee boo waxee rek ñu ne sëriñ bi nangam sëriñ bi violé na oustaz bi violé na daara ja xale yi dañoo tilim nangam ak nangam loolu mooy xeex diine waaw mu leer am na ci dëkk yoo xam ne sax kenn dootul jàngale alquran wala bu ñuy jàng ay saar dañuy tëb wala ay hadis dañuy tëb lii ngeen di jàngale lii ngeen di jàngale lii ngeen di wax lii ngeen di wax mbir yi kuñ fi fekk nga koy jàngale dañ la fiy dàq waaw am na ci yenn dëkk li gën a garaaw mooy américains yi commencé nañ génne alxuraan bu bees ku dem ci youtube bi dina gis jàkka joo xam ne imam ba jigéen la mu tax alhamdulillahi rabbil gaa yi góor ñi nekk ci ginnaawam ak ay li may wax ni soriwul de dem leen ci youtube bi jàkka yoo xam ne ay imam yi ay jigéen lañ ñàkkul fii ñu ko gis loolu pour pour wax leen fu ñu toll tey ci àdduna bi waaye lii lépp li ci garaaw mooy jullit yi amuñu conscience ñoom ci li xew ñoom ñu ngi tëdd di nelaw ndeysaan ñu ngi xëccoo fi 31 décembre ak 24 waaw ñu ngi xëccoo loolu démb amaana parent d'élève boobu nekk na fi sax amaana mu ñëw wala doomam ñëw ci conférence bi démb sama journée bi dafa yendoo naqari dama amoon daje ak sama yenn parent d'élève benn parent d'élève bi doom ji amul ay notes mu ñëw di ma kalaamee ak moom di ma wan ne ni ma fonke sama doom ni ma fonke sama njaboot mu ne ma oustaz sama waa kër rek laa gëm gis nga feet yi 31 décembre bi ma ne ko mu ne ma 3000 la am 3000 ma dugg dugg 3000 la am mu ne xoolal bi mu ñëw xam nga lu ma def damaa dem jënd ko ay pétard ma ni ñu taalal leen ko pour ñu bañ a génn ci kër gi ma découragé ak ni ma ko waxee nag maa ngi xaar mu ne mu tëll foo xam ne mu ne ma ay pétard laa ko jënd ay pétard mu ne ma li ma li ci metti mu taal ko ba pétard yi jeex mu dem doxi ba une heure du matin mu ñëw tëdd mu koy wër ci dëkk bi ma ne ko ah comme pétard nga jënd kay taal na pétard yee jeex na foog mu wëri yeneen est ce que kooku pétard la waroon jënd 3000 yi mais maa sam gis ngeen te kooku kili kilifa gu mag ak sentiment bi moo koy waxee ma ni ndeysaan kii xam nga ne du yar xale mu yaru kilifa guy jënd pétard di ko taalal sa doom naan damaa bañ mu doxi ak kilifa gi jënd ginaar naan damaa bëgg ñu réveillon ci biir kër gi ñoo yem rek benn la ñoom ñaar ñooñu ak kilifa gi gëm ne feet bi jullit bi daf cee war a feetu ñoom ñooñu ñoo yem rek xam nga nag ñan laa yërëm mooy gone yi tey ndeysaan parce que amuñu encadrement yu baax xale tey yi xool am na paa yoo xam ne bu ñu gisee xale ci jàkk comme léegi-léegi julli tàkkusaan bu ñu gisee xale ci jàkk rek seen tension day monté inna allaha yubu sigaara fi lmasajid wa yaamuru lmalaika yusajjiluna asmaahum yàlla dafa bëgg xale ci jàkk est ce que xam ngeen ne yonente alayhi salaatu wasalaam julli na ci jàkka ji gën ci jàkka yi ñaari xale daw Useynu ak Asan fekk ko mu sujjoot ñu yéeg ci kawam di fo yonente bi siggiwul de mu sëgg rek xale yi di fo ci kawam ba yenn saxaaba nee na ñun sax siggi nañ pour xool ndax yonent bi siggi na wala siggiwul ndax sujjóot bi dafa yàgg ndeysaan bi mu sëlmalee saxaaba yi ne ko yonent sa sujjóot bi yàgg na mu ne Ousseynou ak Assane ñoo doon foo sama kaw te bugguma leen woon yàqal ñoo ma waroon di ma def fas ibnu abbas ne neamal farasu farasu kuma waaye yéen a neex fas waay waaye yéen a baax fas boo xam ne Seydina Muhammad mooy sa fas waaye yéen a neex fas xoolal moom nee na dama bañoon yàqal xale yi seen fo allahu akbar yonent bi xam nga niroowul a gaa yi kon beneen bi ci kaw minbar bi la nekk muy xutba mu seen leen ñuy ñëw mu wàcc dagg xutba bi wàcc ñëw jël leen yëg ci kaw daa di jàng aaya innama amwalukum wa awlaadukum daa di jàng aaya ba kon mbokk yi lii yëpp yonent bee ko wax waaye waxu ko rek pour ñu dégg ko dem daf koy wax pour ñu dégg ko am ci conscience ñu fexe ñun ak suñu njaboot ak képp ku ñu yilif nga mën a nekk suñu keppaar mbokk julit yi ñoo na ci beneen hadis yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na sa yali umurakum baadi rijalun yutfi'una sunna wa ya'maluna bil bida wa yu'akhiruna as-salaa an awqatiha qultu ya rasul allah in adraktuhum fa kayfa af'al allahu akbar abdullah ibnu mas'ud nee na damaa toog ba ci yàgg rek yonent bi ne ma Abdullah ibn Mas'ud ma ne ko waaw yonent la bayk wuyu naa la te ne ay mbir a ngi ñëw sama ginnaaw ay góor yoo xam ne dañuy fay sama sunna di dundal bidaa sama sunna la ñuy fay looloo am tey da ngay wax ñu ne loolu de sunna kese la waaye loolu sunna la waay bu ñu kenn rey est-ce que sunna waay la est-ce que sunna rekk la pourtant kii wax sunna rek la moom mi ngi joxe bidaam nañ ko def mi ngi joxe bidaam te boo xoolee sunna boobu lépp lañ rey boo demee ci jàkka yi bu ñuy takk sëy duñ ko takkee ni ko yonent bi doon defee soo demee ci armeel yi bu ñuy suul néew duñ ko ñaanal ni yonent bi doon ñaane même ci julli gi sax ci julli bu ñu sëlmalee julli dem leen jàkk bu ñu sëlmalee gis gars yi dañuy dañuy rëdd si jaada yi am na benn mbokk boo xam ne chaque jour ñooy julleendoo suñ ne asalaamaaleykum rek ma gis ko mu ne affaire bi metti ma trop ma muñ ko ma sonn mënuma ko benn bis ma koj ko deuxième porte bi ma ne ko asalaamaaleykum mu ne ma ne ko yow gis naa suñu sëlmalee rek nga ni nii looy wax mu ne man loolu sama kilifa gu mag moo ma ko joxoon ma ne ko lan la ban ñaan la mu ne ma suratu suratu kawsara ma ne ko noo koy defee mu ne ma inna atayna kal kawsar fasalli rabbik wanhar inna saanik huwal abtar ma ne ko pour lan la mu ne moo may aar c'est terminé am na assurance ma ne ko waaw man ni dama bëggoon ñu waxtaan ci xam naa nag dina métti ma ne ko sa kilifa googu ak yonent bi ku gën a nekk kilifa mu ne ma ah waaye saa waay loolu kenn du ko laajte xam nga ne yonent bi moom amul kuy moroomam fii ma ne ko waaw lu tax yonent bi jox la nga bàyyi lim la jox nga jël keneen lim la jox mu ne yonent lan la joxe ma ne ko mais est-ce que yonent joxul ay azkar baada salaam boo sëlmalee ci julli ndax yonent joxul ay ñaan ndaa man de yooyu dama du yàlla teewlu ma ko nag ma ne ko voilà parce que buggoo koo xam moo tax su fekkoon bëgg nga koo xam di nga dem gëstu nga xam ko yonente daf laa indil ay ñaan boo jullee yooyu nga war a def waroo def yu keneen joxe moo tax boo sëlmalee gars yi naan nangam ak nangam jógal dem sa yoon ndax ñaan yooyu ñuy joxe yonente du joxewu ko yonente def ko bul toog demal bul ko sax jël toog bi ngay toog di jël ñaan yooyu moo tax bidaa di di sax sunna di dee il faut ñu xam ne yonente alayhi salaatu wasalaam moom la yàlla yónni woon moom la wax ne wa ma ataakumu rasul wa ma nahaakum anhu loolu yomb na li leen yonent indi jël leen lim leen tere moom kenn moo am loolu moom kenn moo am wa in tuti uhu tahtadu moom kenn moo am wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim amul keneen waaw moom kenn moo am lu mu leen indi lu leen yonent indil jël leen lu mu leen tere bàyyi leen moom kenn moo am assurance yàlla nee na bu ngeen ko toppee jub waaw bu ngeen ko toppee jub kon bokk na ci màndarga yowmal xiyaam yi ay nit ñoo xam ne dañ fiy nekk di fay li yonent bi indi woon su ngeen demee barki démb dong yàggul mu ngi ci facebook bi ñi partagé sama page barki démb kii dinañ gis benn waay ne sëriñ bi moo gën awliya yi moo gën xutbu zamaan yi moo gën yonent yi ba ci muhammad mii ngeen di wax sax sëñ bee ko gën billahi li ma leen di wax ku ñëw moon ko ko ba ci muhammad mii ngeen di wax sëñ bee ko gën wallahi su ma fenee yàlla ma yàlla dugal safara waaw gis nga ko kenn yëkkati na loxo ne na gis na ko keneen yëkkati na ne na gis na ko ah baax na mu ngoog suñ demee ba Sénégal ñu ne am na fi ku fi gën Muhammad loolu mooy xamaguñ fuñ jëm est-ce que yàlla bind na ku gën ne ku gën Muhammad maa xalaqa al ilahu wala tura basaran yura ka muhammadin bayna al wara sallallahu alayhi wa sallam wallahi al azim loolu la borom xam-xam yi wax même sax ñi ñi nekk fii dañu ne law lam yalu fi lfadail kawni talatuhu tabqa albariyatu fi zalmai allahu keneen ki ne lam yabdu misla mustapha ah fi lbaraya sarmada du loolu la ñu wax sirran wa jahran fi lbaraya du loolu la ñu wax ba pare ñu ne ñoom ñoo gën muhammad kon loolu réer la waaye li yonent bi wax mooy ñëw mooy ay nit ñoo fi nekk pour fay li ma indi te ci jullit ñi lañ leen jaarale ñuy wootewu ne ñoom ay jullit lañ xale yi topp leen xoolal léegi bu ñu demee ba kuy takk sëy am na fi kilifa goo xam ne buy takk sëy nan la koy takkee juróom-ñaari yaa sàmb sëy bi fasu est-ce que yonent bu daan takk sëy noonu la suñ demee ba gëmloo ñooñu ne ñooñu li ñuy def moo gën li yonent bi doon def mooy sunna la ñuy fay moo tax léegi koo wax mbooloo sunna yaa ngi ni kenn du ñëw xam nga lu tax amul fecc amul sàngara amul njaaloo te gars yi dañoo gëm na xumb te dagan na xumb te dagan waaye sax di lay jeg-jeg wal leen ma sama turandoo ci diine loolu ban diine la gis nga nag feek taxawuñu orienté suñu doom yi loolooy waral rek sa doom day ñoo rek ne la maye nañ ma maye nañ ma de nga jur sa doom léegi keneen jël ko maye ko mënoo ci dërëm wala ñeneen nekk fi ne ko kaay ñu wan la yàlla kaay ñu wan la yàlla dama am ñetti jarbaat ñetti jarbaat ma tox suñu kër dëkki gunaas ndeke kër ga yàqu na sama ginnaaw yàlla def ñu toj kër gi ma dellu benn bis ñuy añ rek sama benn waaye mu ne ma oustaz kër gi yàqu na de man ko kër gan mu ne fii ñu toog ma ne ko lu ko yàqu mu ne ma ñett ñuy toog ñoo ko yàq ma ne ko la la mu ne ma ñii de yi ah ay yàlla lañ ma ne koy yàlla mu ne waaw yàlla mu ne waaw ma ne kenn gi yow yàlla nga mu ne waaw man yàlla laa ma ne ko ma ne keneen ki waa yow kii li mu wax yow loo ci xam yow bon yàlla yow Mouhamed sax rek keneen ki ne ah ah Mouhamed kay dafa am fu ñu gën rek am fu ñu ko gën. dégg nga de ci bool ci bool ñu ngi añ kenn nettali yi moo ko sama kër man yaa ñu ne ma waaw keneen ki nag day dër quoi troisième personne bi. ma ne ko sóora mu ne ma ne ko gars yi li ñu wax loo ci xam mu ne ah dëgg la kay. laa ilaha illallah rek ma daal di teg kuddu gi ma doon añee ma daal di yëkkati sama mbala rek génne jaasi gi man ne ci biti sama yaay ñëw naa ma bul yàq kër gi xam nga démb nga fi ñëw dañ naan yaa tas kër gi démb nga fi ñëw la nga am sama kaw di yuuxu ba ma bàyyi leen xam nga xoolal xoolal xoolal xale buñ dugal ci bopp bi yaa gën Mouhamed xale buñ dugal ci bopp bi Mouhamed am na fu mu la gën am na foo ko gën xale buñ dugal ci bopp bi yow yàlla nga keneen ki sama benn dëkkandoo la moom tamit ndeke doomam dugal nañ ko ci doom ji xëy rek ne ko papa gis naa yàlla de mu ne gis nga ko mu ne waaw mu ne bi nga ko gisee loo ko wax mu ne waxuma ko dara de mu ne ko xaaral ma ñëw papa ji dem jël bale taxaw xam ngeen bale taxaw dóor ko ko ba mu damm ñëpp daw ñëw ñu ne yow looy def nii mu ne ah man may plombier mu gis yàlla waxu ko sama problème pour ma régler ko kii kii kii dafa bayam xoolal caaxaan yooyu te li garaaw mooy xale yooyu ñuy wax ne da ngeen gis yàlla koo ci gis tubéy ji da koo kiris karas ci gannaaw ah ma nga tilim ñuul ku ku salte du julli du jàpp bokkul sax ci nit ñu baax ñi soo ko waxee mu ne la non dafa am fu gën a gaaw kaa foofu laa jaar ndax man damay gis yàlla wala yàlla laa kon li yonent bi waxoon mooy dëgg sànq Cheikh Ousmane wax na ci hadisu Huzayfa Huzayfa nee na damaa nekk ak yonent bi waaye man lu bon rek laay laaj duma laaj lu baax ñu ne ko Huzayfa lu tax mu ne damaa bëgg a xàmmee lan mooy lu bon pour ma moytu ko ci hadisu Huzayfa boobu da ngay dégg yonent bi nee na suñ demee ba axiru zaman dana am ay duaatu saytaan ay wootekatu saytaane yoo xam ne dañuy frenkulaayu ci yoon wi di réeralaat loolu mooy am tey ñaata yoon ngay dégg fi ay mère di jooy seeni doom yu ñu këf billaahi góor ak jigéen am na benn enseignante boo xam ne sama école la nekk awa bari la tudd rakkam bu jigéen benn waay moo ko jël xale bi day jàng lii sa la nekk benn waaye moo ko jël détourné ko yóbbu ko këram teg ñu toog ay weer gisuñu xale bi ñuy wër di wër ba gis Grand Yoff la nekk fii may wax ni am na ci ñoo xam ne ñu ngi fi sama ginnaaw xam nañu ndaw si ban kër la nekk xam nga lu garaaw biñ fa demee dañ ko doon ñaan pour mu jox leen xale bi naan leen déedéet kii moom ah kii moom naa ko ba pare gaa yi daa koy bàyyi dem police police ne leen mesure na quoi lu ko neex mu def mesure na loolu mooy mbetteel ci ñun bi ñu demee commissariat bu police parcelle mu ne xale bi mesure na doomu jàmbur ba pare jigéen papaam ak yaayam dee mu nekk ak magam bu jigéen muy sonn ci moom ñu fokkarti ko ci moom yóbbu ko ëllëg si biir lu ci dekk mooy dañ ko nar a maye te du ko yëg te ku leen neex lañ koy may ba pare buñ fi ñu nekk ci loolu waxuñ ci loolu ñu nekk fii di amer de nit ñi nit ñi fat li ñu war a wax fii waxuñu ko Sénégal li ñu war a wax waxuñu ko ñoom Alsaan Gueye oustaz Alsaan Gueye ngi nii barki démb dégg ngeen événement góor jigéen ñi moo ngi nii moog imam Massamba war nañ fépp ci kër sëriñ yi ban changement la am nee na ñooñ duñu ay góor jigéen dégg naa benn waaye di leen tontu tey ci Lamp Fall naan ay góor jigéen lañ ndax fekk nañ fa ay paan fekk fa ay sëru nocc fekk fa ay fer fekk fa cuuraay fekk fa bàggu mariage te jigéen nekk fa ay lan lañ ban fan lan lañ ko doon def ci guddi Seydina Muhammad bi mu juddu guddi gi yonent bi juddu ñoom ñuy daje di def mariage di célébrer mariage góor jigéen voilà mu nga kon nanu yeewu nanu yeewu yee sunu njaboot gis ngeen tey képp ku dul jàpp ci sa loxo doom di wax bu yeboo nga xam ne yaa ngi ci musiba da ngay xëy ñu indil la loo xam ne bu ñu yoroonee sa doom ji nangam la da ngay crise cardiaque ci kër gi dee fekk doo ko sóoraale ndax ci jamono boobu lañ toll. yéen sama mbokk julit li ma doon wax sànq rek yonent bi mooy wax ak ñun hadisu Huzayfa ba tey yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na yudrasul islam kama yudras wa shay'u sawb hatta la yudri min siyaamin wala sala wala sadaqa yonent bi nee na dañuy moxoñe lislaam sama ginnaaw dañ koy moxoñe dañ koy dëggate dañ koy def morso fobeere islaam mooy tey lii Sénégal kan moo fi kan moo fi sàmm islaam ñan ñoo fi toogal lislaam Sénégal wax leen ma turu kenn wax leen ma turu kenn ku toogal islaam Sénégal amul moo tax lu ñu yëkkati lu leen neex def ci lislaam lu leen neex wax ku nekk bis bu nekk nga gis ay ay ay wootekat. am na benn mbokk bu jógee mbuur mu ngi fiy toog bàyyi dafa ab yonent mu ngi ni toog kii bàyyi na ab yonent mbuur waaw wala loolu ci réew moo xam ne quatre-vingt-quinze pour cent musulman dañuy moxoñe l'islam di ko nappaaje comme nu mu leen neexee yonent bi nee na comme ni ñuy def morso fobeere la ñuy def l'islam ma tëb bokk na ci ba tey tasaare musique musique bii ngeen di gis mu tasaaroo utal ko ay école yu ñuy jàngee utal ko ay professeur utal ko ay salle fan yële passé dafa am benn mbokk bu doon jàngale fecc béninois béninois la te doon jàngale fecc yàlla def mu dajeeg ay mbokk ñu koy waar di ko waar ba mu tuub ñu indi ko sunu mosquée mu tuub mu ne ñu ne ko looy liggéey mu ne damay jàngale fecc ñu ne ko da ngay bàyyi loolu lan nga mën mu ne am naa permis ñu utal ko oto boole ko ak benn waaye mu koy dawalal xam nga xam nga ñi mu doon jàngal fecc jigéen ñi jullit yi mu doon jàngal fecc ni ñu def ñu ñëw këram ne ne ne dañoo am naqar dañuy jooy ndax waa ji yàq na seen avenir jullit yi la jullit yi ñëw kër waa ji di jooy ku bon nga ku torox nga ndax ñun ci pecc mi lañ defoon sunu avenir arrêté nga ko ñuy wax nga naan da ngay tuub looy tuub julli li de ñoo ñëw këram est-ce que yonent bi terewuñu musique waaye li ci garaaw mooy musique bi ci kër yi kaw yi la commencé bal sax dañuy woy sëriñ yi yàgg naa wax ci band axiru zaman yi ci waxtaan yi sëriñ Touba am na woykat bu jigéen buñ ko tuddee alaaji Malick am na woykat bu jigéen buñ ko tuddee sëñ Fallou am na woykat wala bu ngeen ko bëggee wet di ma wax seen tur ah waaw ku nekk am na waykat fii dañ leen di way sëriñ yëpp dañ leen di way bal sax ci gàmmu gii passé am na ci benn kilifa diine mu ne Kouthia mi ku jar a jàppale la yéen ñëpp na ngeen ko jàppale mu ne Youssou Ndour yow yow yaa gën a neex baat Sénégal yow tax nga ñëpp di way est-ce que loolu mooy war a nekk diine lan la yonent wax ci hadisu Bukhari yi la yakunanna min ummati aqwaman yastahiluuna alxira wal xarir wal xamr wal maasif suñ demee ba àddina di waaj a jeex dina am ay nit ñoo xam ne dañuy daganal njaaloo daganal sàngara daganal musique benn mbokk nee na ma démb soo taal musique ci biir kër yi paa bi danaa ne eh fayal yow waaye léegi nee na paa bi day yor kurus ne la Moodu nga ne amu ne wàññil wàññil wàññil waay wàññil loolu wàññi ko bare naan ni kurus gi nag di yëngal tànk bi mu ngoog loolu moo lay wan ne fi ñu toll ci conscience imam ahmad ñeenti imam yii imam malik shafi abu hanifa ahmad ñoom ñeenti yëpp dañ leen laaj ci musique ñu tont ah kan moo ci jiitu abu hanifa nee na simaul agani fisq wa talazuzu biha kufr nee na kuy déglu musique bandi nga ñu ne ku ci kontaan nag mu ne kooku yéeféer la kuy déglu musique Abu Hanifa nee na yow bandi nga ñu ne ku ci kontaan mu ne kooku yéeféer la kon ngirum Hanifa moom Hanafiya loolu la ñu wax Malik moom nee na innama yafaluhu indana al fusaq bi muy wax wax ji mu ngi ci jumaa yonent bi ñi koy def ci ñun bokk sama ngir ñëpp ay bandi lañ mu xëm ñu jëlee ko ci jàkka ji di ko sotti ndox di ko yóbbu këram mu naan hal yasma'uhu muslim est-ce que ab jullit dina déglu musique su Malick ñëwoon tey Sénégal lu mu fi fekk Shafi nee na yunbitu nifaq fi lqalbi fala yujibuni day saxal naa fekk ci xol yéemu ma aw imam ahmad moo wax loolu kon mbokk jullit yi li ñu mayoon ci waxtu moo jeex ah loolu la ma imaam wax de kon nag maa ngi leen di soññu beneen yoone su ngeen waxee 4 heures ngay ñëw 4 heures 4 heures lañ waxoon ñu commencé 5 heures la moo tax waxtaan bi gàtt asalaamaaleykum wa rahmatullah